Sonko aurait été député la tâche aurait pu être plus pour le régime parce que waroon nañ nekk fii di lijjanti ay lever et dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale da doon métti de. xam nga li problème may mun a. waaw tey je <laughs> xam nga dama ne la liste nationale Askan bi képp ku nekk Yewwi Askan bi di leader nga ne Khalifa moo ko yàq te de mauvaise foi wax naa la sànq du mu ñëwee DG yëpp. jox la si bi daca fal daca liggéey ak Cheikh Youm erreur bi fu mu jógee wax loolu moom dafa leer erreur pure la ak mandataire bi. d'accord tu l'as dit. la révélation c'est quoi maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga kon liste bi daal di invalide nga kon liste baaxatul d'accord bi bi ñu ne liste bi dafa dañuy def ak liste suppléant yi bi ñu ne dañuy def ak liste suppléant yi est-ce que xam nga Barthélémy Diaz. il a demandé à un investisseur taxawu Sénégal suppléant en pole position de désister pour que mu dugal dossier Ousmane Sonko. ah bon. billaahi maa la wax lii xam nga lu dafa ne il est hors de question que Ousmane ne soit pas à l'Assemblée parce que dafa war am unité parlementaire. il a demandé moom Barthélémy à un candidat investi de Yewwi Askan de taxawu Sénégal ci liste bi waa jooju bi may ñëw ba jot naa ko téléphone ko dinaa ko wax du ma wax sa tur mu ne ko dama bëggu nga désister comme ça Ousmane mun a jël sa place pour mu nekk député parce que dafa wax a immunité parlementaire Barth di Barth jëm na ko. qu'est-ce qui s'est passé après. jëm na ko. non sottiwul comment. Eh, non loolu ñoom ñaar la dama la expliqué moom dafa ne dama ne génn loolu pour que Ousmane bokk ci liste suppléants yi il a fallu dafa ñaan kenn ne ko bàyyil soo bàyyee ñu doon Ousmane ndax dafa ne moom Ousmane dafa war a am parlementaire si nga may mën a bu jafe-jafe amee rek bu nañ xool dëmb parce que ëllëg dañuy jëwaat te bu ñu jëwaatee nit warul rus beneen bi mooy man Barthélémy toog naa ak moom bien avant la liste de députés mu ne ma il faut que l'on fasse tout pour que Guy Marius Sagna dem assemblée nationale ma ne ko mais Guy Marius Sagna moom politique il a un mouvement frappe mu ne ma Guy Marius il prend trop de risques il faut moom une une parlementaire pour mun a sécuriser wu on doit tout faire pour mu nekk ci liste nationale bi parce que dañu jaas man wax dama loolu après lañ jël Guy Marius Sagna yóbbu ko Ziguinchor mais moom ci xelam ak ci maynam moo doon ko Guy Marius nekk ci liste bi moo doon que Ousmane Sonko. il a essayé de de ne waa ji bàyyil Ousmane Ousmane dugg loolu ma xamal la ko tey nii pour wane ne Barcelone fu mu tolloon Ousmane ak li mu ko yéene woon donc amuñu benn intérêt ñun yàq liste bi wala xeex xeex Ousmane Sonko yàlla xam na loolu parce que dañu àndoon ànd bu affaire nag ànd bu jekk ànd boo xamante ni ànd gor la quoi ñu nag ñoom ñuy liggéey ci lu bëri nag xamante nag miinante dem ba sax nekk ay xarit jaxasoo am seen biir bu jafe-jafe amee na ku ne jël recul.